d'accord monsieur Niang bu ñu bu ñu waxee Daouda Niang wax APR. lan mooy problème mu APR lan mooy problème mu Benno Bokk Yaakaar pourquoi ñu bëri tu en entends diir que président Macky Sall dafa wét ci combat bi. Mhm. maanaam delloowuñu ko. Mhm. li mu leble. Mhm. ci yéen ñi nga xamante ne yéen a bokk seen. seen seen coalition muy Benno Bokk Yaakaar ak li nga xam ne mooy APR. APR dafa bëri ay traître xam nga Benno Bokk Yaakaar en personne. Hmm. amul benn problème. benn bokk yaakaar mooy coalition bi Macky Sall àndal ba falu ci nguur gi pendant douze ans. mosoo si dégg kuy yëngatu. wala ku def conférence de presse wala mu revendiquer dara mosoo ko gis loolu mooy wane gore gi mu gore mais moom parti bi mu bokk moom nekk ko. ñoom ñoo am problème moo am ay lâche ay lâche ñoo nekk ci biir benn bokk yàq ak euh, ci biir biir APR. li la koy won mooy bi ñu ñëwee nekk ak moom ci benn gouvernement. bi ñu ñëwee mu désigné benn pour dem candidature ñenn ñi génn ku mel ne Mame teral bu ko président teralul amul suufu Sénégal la ko jël denk ko ci loxom mu yor ko pendant des années opportunité yi nga am ken xamul numu toll. Mhm. ali ngou Ndiaye budget bi mu yor 600 milliards la. 600 mhm. milliards. bun Abdallah John, premier ministre la ko président def. Mhm. teraanga bu ëpp loolu dafa am ay Mimi Touré ministre de l'intérieur président assemblée lu nek mu def la ko def la ay premier ministre envoyé spécial nga wër di ko xeex taxaw ci ginnaawam. Nous ñëpp dañu nekk noonu président actuellement nii te teram sommes mu nekk la ko mooy bi ñu xëyee ci parti ci coalition dem defi parce que moom dafay quitter ci pouvoir bi te tànn nañ kenn ba pare loolu mooy njëkk a nekk ñu njëkk Il nekk ay traître ñeneen ñi si des xam nga traître yi mm-hmm. mooy yenn certaines directeurs yi yenn certaines chef agence yi ñu jox yenn certaines ministres yi ñu ci biir APR toog croiser les bras bañ a génn taxaw dem ci médias dépasser seen alal yi ñu leen jox nonu nga xamni opportunité état mo tax ñu am ko Macky Sall tax ñu am ko. Mhm. ñu génn jox ko yi taxaw xex défendre ko ci télé yi ci radio yi ci fépp. lolu moy sen rôle ñom té lolu lañu refuser ku nekk da nga courage le bras toog sa ruq parce que yi ku melni ñun ñu taxaw ci média yi di défendre presse wala Tanzania bu taxaw di xex pour président nekk li mu nekk tey wala ainsi de suite ay ñom Ba jaxate 15 de suite kenn defu ko ci ñom ñom ñu yor opportunité ñun ñu dara yéen lan lañ leen jox yeen waroon ngeen am au moins benn trente millions wala quarante millions par mois parce que da ngeen di liggéey pour république bi da di défendre état bi pour socle bi bañ a daanu yéen lañu war a jox alal ju bari yéen yéen a war a défendre état bi yéen ay défendre état bi mais ñoom ministre de la république yi yenn chef agence yi yenn directeur société yi yenn ministres yi ñu taxaw ñoom croiser les bras bàyyi président la république kese ak situation réew mi nekk opinion internationale bi yëpp viré ci kawam opposition bi société civile bi ñuy wax média yi ñëpp attaqué président mom rek mu seul mu nek fi mu mel ne falul won ay nit joxul leen ay moyens hein fal ay nit joxul leen ay moyens ñu nek ci condition yu bien ñu jël alal rew mi tëdd ko tëdd ci ay clim buñu taxawé liñu bu situation politique taxawé ñu ñom ñep ku nek tëdd sa kër dañu war a ci terrain bi sol seen i jean ak seen t taxaw ci biir population bi satisfaire leen waxtaan ak nit ñi moralement parce que ci élection lañu jëm ben candidat le candidat lañu ben bokk yaakar amul ñaari amul ñet Amadou bala de na ci pour jappalé ko mu réussir élection yi am mais lâcheté bi de ci ñom mo la tay d'un affaire pourtant dafa mandat le président de la république xoolal dafa mon mandat cinq ans yi ni wax ni ni ni. la bu mu waron en 2016 la révisé constitution bi ne faut perdre de mandat constitutif de cinq ans kenn mënul def lu ëpp ñaari mandat yu juróomi at yu tegaloo mu am mandat mu renoncé candidature bi loolu moo tax mu renoncé ko ñaar la benn bi APR la benn bi sécurité de ce la pour dëkk bi am ko dëkk bi am dal am jàmm nit ñi mën a dund dund bu sell beneen bi mooy APR bi mu bokk moom nga xam ne mooy seefu parti bi mhm. ay traître nekk ci di ko wor taxaw rek pour wor ko moom décider pour demee ci élection ñu croiser les bras pour ñu gagné ko. parce que mu reporté élection gis nañu même mbir yi ma toog ci plateau yi di ko traité de toutes les. première traître bi mooy kooku traître bu mag la ay moyen moo taxoon mu toogoon foofu di ko wax bi mu wóoree ne président dafay génn dem bu wóoree ne président day defaat beneen mandat jamais mu toog di waxee noonu mu waxee première traître boobu Birima la ñoom ñëpp c'est des loolu laa leen di wax benn boo ko yaakaar ñi fa APR il faut bokkoon génn def ay candidat ak ñi nga xam dañu génn à presse bi di contraire bi ñu doon waxee ñoom c'est des traîtres dañu taxaw pour président président de la république Macky Sall dama lay wax mbir de ko war gis ko des jël ay décision ku nekk nga nekk ci li nga nekk wa du ko ci duñ gis que lu ko ci ci dañuy def nañ lu leen neex Mais duñ ci APR APR APR polémique c'est un affaire de yoy ñu tok nous ñu nous ko ñom ñep muy jigen muy goor top ci ginaaw Amadou Ba parti bi mom la décidé té ñep dañ ci and coalition bi mom lañ APR mom la majorité bi mom lañ nous ñi nekk ci mbedd mi sax nga ay APR dañu nit ku set la ku transparence bu woor bu ci la kon ku c'est un bon profil pour le président de la République pour nous protéger dëkk bi mhm moyens yi nga xamni ne mu ngi fi jotagum nekk président liggéey ko mu mëna égaler projet yoyu d'accord parce que ma wax la dara ci mom tamit. Mm-hmm. Mm-hmm. projet yi président réussir yépp à 50 dafa jaar ci loxoom. bailleur de fonds yi ONG yi indi alal ci yépp ci réew mi mom mo dem waaw mo dem plaider jiko mom la Macky Sall yobbu mu dem plaider ko signer contrat yépp indi ko. d'accord kon ku xam rek ku xam réew mi la. d'accord